leçon bi mu réer nag mooy ñu xeex ñiy dee dee lii xew-xew ñu dem ba am occasion jël ñi fi nekk am ñoo xam ne ñu ngi bàyyi seen i carte ci préfecture yi muy nelaw loolu lu méttee métti la na ñëpp jëli seen carte d'identité incha yëpp génn euh, fa seeni ànd ak seen euh, frère seen doom seen mag seen rakk ngir rek mu ñëw daal di euh, seet si ñi nga xam ne ni ñoo di famille wam fii ci Sakal ginnaaw bi mu génnee fële ca prison bu Rëbës daanaka ñu tëj ko fa ci lu tollook luy jege fukki tey nag mu ñëw ci dëkk bi gis nga noonu Abdou Toba ngi noonu sama kanam yore caméra bi euh, kii di sax euh, yarga euh, moo nekk ci oto bu boobu ngeen seen ngeen di seen ñëw fii ci dëkk bu mag bii di di di sakkal daanaka mag ñeeg ndaw ñeek ñëpp a génn di tertu seen doom seen xarit mu yarga si bokk ci parti bi di Pastef waaye ñoom fexe nañ ba dikk rek ngir seet si njaboot gi ngir dalal seen xel ndax euh, euh, gëj gis bi nga xamante ne ni gëj gëj nañ ko gis seen doom ji moo ngi noonu di wàcc ci oto bi euh, fa seene saafonteeg ak way juram yi fi nekk moo ngi noonu moom yarga vraiment boo gisee papa yi rek nga xam ne contentement dëgg lañ am jooy naa guddi jooy naa bëccëg dem naa ba màkk di ñaan

maman lan ngay wax ci li nga waa lan lay wax ci li ma gis tey xol bu sedd ndax Yarga si dañ koo jur man Aïda Seck Fall yaayam ñoo ànd suñu xale ànd ba yàlla moom ko mu jóge fi bàyyi fi njabootam gi ñun ñëpp ñu ànd taxaw ci ginnaaw njabootam gi téyel njabootam gi ñu xam leen ne ñuy xale yu yaru di xale yu baax di xale yu joxe cër di xam di xale yu xam fu ñuy teg seen tànk. ba ñu déggee li dal ci kawam ñun ñëpp boo gisee ñu gën a am li ñu naqadi mooy melitoowuñu ko ndax yaroowuñu ko meluñu ko may du ma nelaw guddi du ma nelaw yar ga si damay def fu ma toll dem naa ba màkkatal mu karama yàlla xam na ko ak njàpp mi ci sama yaram di ko ñaanal yàlla génne ko ci tiis wii ko dal ndax ku nekk xam ne du ndëngteem du ñàkk jubam du ñàkk yaram du ñàkk joxe cëram ñun ñu ko jur daal xam nañ ni liñ ko doon ñaanal tey yàlla may na nu ko dañ ko ko teg ëpp ko doole teg ko ko du lu mu jëf du lu mu liggéey waaye nag ñi nga xamante ni si ñoo ko ëpp doole teg ko lii yàllaa leen ëpp doole moom mi leen sàkk ñuy ñaan ci kàttanu yàlla ak jëmmi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko yàlla atteeg ñoom li mu bëgg yéene ko ci réew mi ak ñi mu àndal yàlla na ko yàlla def bi jaay nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam Adja ay Sarr laa tudd nag làqatuwuma jëwuma kuy làqatu mbaa ngi jëw doon taxaw di wax ci micro sama xol sedd dama naroon na julli ji tàkkusaan mais ma ne du ma dem mukk tëj gisantewu ma ak sama doom ji saafonteeg moom alhamdulilahi rabil alamina alhamdulilahi rabil alamina jërëjëf yàlla sunu borom jërëjëf sant yàlla dañuy daal di dugg si biir kër gi rek su defee ñu daal di may yar nga daal di mën a agsi si euh, biir euh, kër gi moo ngi noon di wàcc si oto ba wàcc ci oto bi. moo ngi noonu di waajal dugg ci biir kër gi moom yarga gis nga jeunes yi détermination bi ñu am tey daanaka ci koo ci laaj ñu ne euh, depuis 11h la ñëpp génn toog ko xaar fii nga xamante ne nii moo di dëkkam di euh, sàkkal ay ca mu ngi noonu di dugg ci biir kër gi yéen a koy seen noonu muy ñëw ay xaritam ak ay rakkam. di ko gunge maam Pathé ngi noonu

teertu bu rëy bi jagleel ko Yarga Sy mu nekk suñu mbokk nekk suñu xarit yu bokk li ñu bokk di ko xeex ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sargal ci yitte ju ji ngeen ko def sargal gi ngeen ko sargal ci bis bu màgg bi di wax rek ñun ñépp nañu maase ànd ko dal jàng faatiha bu sell teg ci salaatu ala nabi bu kenn ku nekk man bu ko defee ñu tëj ko ñaan suñu borom mu defal ñu tawféex koor gi ñu jublu ñu dugg si si jàmm waaye yéen ju ñu am muy campagne yi ñu jëg dëgmal campagne yi suñu borom defal ñu si tawféex ba yéen ji ci am ñu am ko kon nañ ñëpp bokk maase déglu ñu jàng fatiha xabu sell teg ci saatu bi bu kenn ku nekk man na jàng saatu ànd bi man bu ko defee ñu tëjee ko ko daal di ñaan suñuy soxla ñaan suñu borom mu defal ñu lépp lu ñuy sàkku ci àdduna waaye defal ñu tawféex bu baax a baax bañ egg si koor gi ñu jublu def ci ay jaamu yàlla yum nangu te fulal ñu ko waaye campagne yu ñu dëgmal élection yi ñu dëgmal tamit suñu borom defal ñu si ndam ba ñu gañe ko si kàttanu yàlla kon na ñëpp maase ñu jàng fatiha bismillah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyaka nacbudu wa iyaka nastain ihdina sirata almustaqim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 salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp ñi fi teew tey eh, maa ngi nuyu Yarga ak délégation bi mu àndal kulim juum maa ngi nuyu waa Sakal ak waa Louga ñi ko teertu tey ànd ak moom fii ba Louga ci turu département bi ah ñu tooñ ko ñu tooñ ñu ndax ñun ñëpp ay frère lañu ñu nekkee ay frère moo tax lépp li ko dal dañuy dal muy nattu bi nga xam ne dund na ko ci dignité euh, sëñ Assane bi ma jiitu wax na ko dund na ko ci full ak fayda ñu ànd ak suñu métit ànd ak lépp bàyyi ko ci loxo yàlla ba tey mu ñëw ànd ak ñun ñëw fii fi nga xam ne fii la soqeekoo fii lay waajuram ne fii la mbokkam yi ne ñu ànd ak ñoom teertu ko ma gis ñi fi toog sama xol sedd si sama xol tooy te loolu mënuma koo ñàkk wax euh, maa ngi jóge Louga en tant que coordonnateur départemental bu ñu jokkoo laa ko ne dinaa bokk délégation bi Louga laa lay xaar euh, Bocce Boiro bi nga xam ne mooy trésorier bi mu gunge ma ci ma ñëwit bu ñuy dajee EDK ba Pape Moussa Sy bi nga xam ne mooy le chargé de la formation ñu ànd ci ak euh, mu ngi ànd ak Mame Cheikh ak euh, Aziz yi nga xam ne ñun ñoo jógee Louga ñëw ànd ak ñoom Bébé Sakal ndax bés bi ndax Yarga Sy mi nga xam ne nekk un militant de Pastef nekk jàmbaar dund lu métti te parti bi jaral ko lu ne te li ko dalit parti gi moo ko teg sama wax du ndax ndaxte guddee nañu te ñi war a wax dañoo bari wante jotaay ni ma ko gisee tey ak ni ñu ko teertoo tey suñ ci bëggee am ndam dañ ko war a gunge jour élection ya ci urne ya ndax ñu mën a am ndam ndam bi ñu bëgg carte yi rek ñoo tax ñu am ko te ni ngeen teewee fii tey ku nekk ci boppam su fi jógee yóbbu kartam dem wote ji pour la grande coalition Diomaye président yaakaar naa ne yaakaar naa ne au soir du 24 suñu ndogoo ba pare jubile rek moo ciy tegu te am na yaakaar ne incha allah lay demee maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di jaajëfal. auzu billahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di dalal la coordination départementale Pastef bu luga monsieur Ali Fall jiite ko di nuyu monsieur Serigne Assane Mbacké di nuyu le coordonnateur départemental di nuyu monsieur Mapate mbay di nuyu monsieur le coordonnateur du MODAP mooy mouvement des dooma doomu daar patriote di nuyu le représentant du maire et des conseillers municipaux di nuyu le représentant de l'imam di nuyu le représentant du chef de village kàddu yi du gudd comme il est d'usage ni ñu koy defee rek d'habitude bu amee pour respecter solennité bi dañuy def un petit discours moo discours ne sera pas long il repose essentiellement sur des mots de remerciement à l'endroit de la population sakaloise et d'encouragement à l'égard de notre frère Yargassi tout d'abord permettez-moi de saluer et remercier toute l'assistance les autorités administratives et politiques les autorités religieuses coutumières les notables notre frère Yargassi et sa délégation, les jeunes, les femmes, les militants et sympathisants de PASTEF, les patriotes de la diaspora, bref, tous les Sakalois. Oui, parce que tous les Sakalois, en dehors des considérations politiques, s'étaient levés et unis comme un seul homme pour dénoncer l'arrestation arbitraire d'un digne fils de Sakal. tous les Sakalois avaient formulé des prières pour sa libération et le bon Dieu a exaucé nos prières. Que les bénédictions de Dieu soient toujours avec nous. Qu'Allah guide nos pas, raffermit notre foi, purifie nos cœurs, nous accorde tous les bienfaits et nous préserve de toutes les épreuves dans le monde d'ici-bas et dans la vie future. C'est ici, devant le centre social, que nous une conférence de presse le 22 mars 2023 pour soutenir notre frère Yadgassi. Je me rappelle, quand nous organisions cette conférence de presse, la situation dans le pays était très tendue. Quand nous avions fait l'annonce dans les réseaux sociaux, beaucoup de gens m'avaient appelé pour nous donner des conseils en nous indiquant la posture à tenir. Finalement, j'étais obligé de partager mon discours à un haut responsable de PASTEF et d'ailleurs, il m'avait suggéré de modifier un passage de Juste pour vous dire à quel point la situation dans le pays était morose. Pour une petite publication dans les réseaux sociaux, un émoticône ou un sticker partagé, on pouvait vous conduire en prison. Donner son opinion était devenu un délit, surtout quand on faisait partie de l'opposition dite radicale. Un an après, la situation est tout autre. Le contexte a changé. Une loi d'amnistie a été même votée à l'Assemblée nationale ce qui devrait effacer toutes les exactions qui ont été commises entre février 2021 et février Pendant cette période, d'honnêtes citoyens ont rencontré énormément de difficultés. Certains ont été brimés et violentés. Ce sont 11 mois, je dis bien 11 mois, qu'on a effacé de la vie de notre frère Yargassi. Un honnête citoyen, un patriote, un héros, un digne fils de Sakal qui a osé participer à la réécriture de l'histoire sénégalaise. il a osé s'engager contre l'injustice et l'oppression dont a été victime le président Ousmane Sonko. C'est sans doute dans cette optique que Martin Luther King ceci. Notre vie s'arrête le jour où nous gardons le silence sur des choses graves. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais l'indifférence des bons. Puis, à la fin, nous souviendrons non pas des maux de nos ennemis, mais du silence de nos amis. Fin de citation. Yargassi est un homme très dégourdi, très engagé pour la défense du projet de PASTEF. Il est un homme courtois, ouvert d'esprit et très disponible. À chaque fois que le besoin se fait sentir, cet homme, le, il est là à chaque fois que le besoin se fait sentir. Cet homme est incapable de faire du mal à son prochain. Et à plus forte raison, l'homme qu'il a tant adulé est porté dans son cœur. Yarga Sy a toujours impressionné par sa sagesse, son exceptionnel et naturel altruisme, son débordant amour du prochain et de la patrie. Les patriotes de Sakal ne me démentiront guère. L'homme s'est forgé une figure sous le sceau de l'éthique qui force aujourd'hui l'admiration et impose la révérence. Lors des élections législatives de 2022, alors que j'étais à Bambay dans le cadre de l'examen du baccalauréat, j'ai été informé d'une caravane que le président Sonko devait tenir à Bambay. C'est finalement à 11h du matin que la caravane est arrivée à Bambay après un parcours de plusieurs dizaines de kilomètres. Quand j'ai aperçu mon frère Yelgassi en compagnie de la garde rapprochée de Sonko, je me suis faufilé dans la foule pour lui faire signe. Il était tout en sueur et j'imagine très fatigué. Dès que j'ai tiré son t-shirt, il a sauté sur moi et en me serrant fortement dans ses bras. Sûrement, il était très content de retrouver un Sakalois au cœur Aujourd'hui, je suis comblé de joie de retrouver mon frère après la période douloureuse qu'il a vécue. Cependant, nul ne peut échapper à son destin. Toutes les épreuves de la vie, aussi cruelles soient-elles, sont instructives, constructives. Elles nous appellent à suivre le chemin de l'espérance pour façonner une humanité qui accède à l'humanité. Il faut savoir placer l'humanité au centre de nos actions, faire de la résilience une stratégie de survie. Je ne saurais terminer mon propos sans pour autant remercier le bureau de la section communale PASTEF de Sakal, la coordination départementale PASTEF de Louga, le comité électoral communal de la coalition Diomaye Président, la trésorière nationale du mouvement Magou PASTEF, Madame Antembeng, tous les leaders politiques de Sakal, sans oublier les Sakalois de la diaspora qui nous ont apporté leur soutien total depuis un an. Je vous remercie de votre aimable attention. أعوذ بك من من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون asalaamaaleykum yéen population bu sàkkal ginnaaw buñ leen nuyoo ñu ngi leen di jaar di am mbégte lool ci ñëw gi ñu ñëw tay ànd ak sunu frère sunu xarit muy yarga si di seen doom président Ousmane Sonko nag dafa ñëw fekk Afrique boo xam ne dafa lëndëm Afrique boo xam ne ay ati at ñuy jàng te mënuñoo xam waaye ay ati at ñuy liggéey te mënuñoo am nit ku ñuul yàgg ci toppe toppe googu nag moo waral bi mu demee bañ ni ko mën ngaa jiite du ko gëm waaye ko mel ni président Sonko bi mu ñëwee dafa taxaw taxawaayu leadership ah xam naa kàddu yi ñetti bay rek lay doon damay wax ni Afrique bu jóg ci toppee bari yoonu boppam mën a am ndam waaye ci kaw buñ ko gëmee taxawaay bi mooy Sonko Afrique bu jóg ci toppee beri yoonu boppam mën a am ndam ci kaw buñ ko gëmee taxawaay bi mooy Sonko Afrique bu jóg ci toppee beri boppam mën a am ndam ci kaw buñ ko gëmee taxawaay bi mooy Sonko politique politique sain digg yu dul jeex weesu nañu ko révolutionnaire bi réveillé Afrique mooy Sonko politique politique sain digg dul jeex weesu nañu ko révolutionnaire bi réveillé Afrique mooy Sonko. 1500 ci impôt et domaine te sàccul kuy wër ku wóor ne leen ko njub gi mooy Sonko jërëjën jëf bi ma duggee sama xel dafa dem ci benn événement bu rëy boo xam ni yontu yàlla yuusuf keroog bi ko yàlla nattoo mu jóge ci ay doomi baayam ñu sànni ko ci teen mu jóge fa ñu ñëw jaay ko muy doomu yonent mu dem ñu jaay ko ci dëkk bu ñuy wax Égypte Qahira premier ministre ba jënd ko yàlla nattu ko ci soxnaam mu ni ko duma moy yàlla yàlla mu ñaan yàlla yàlla dugal ko kaso lu mat juróom ñaari at ba mu ca génnee la mu ko jural mooy dañ ko nommé ministre du développement rural et l'économie ba mu ñëwee ay doomu baayam ñëw ci gàttal ñëw ca dëkk ba mu indi leen ñoom ñépp ak tàntaam ak baayam Yaaqub dafa ne baayam yaa abati hada taawilu ruyaaya min qabl qad jaalaha rabbi xaqan wa qad axsana bii id axrajani min alsijni wa jaa bikum min baadi wa an nazaga alcheytan bayni wa bayna ixwati loolu mooy lan keroog ba mu génnee prison dañu ko nommé ministre de l'économie nommé ko ministre bi yore wàllu mbay mi mu toog ni bàyyi sama gént ga ma géntoon yàlla def na ko dëgg tey gannaaw bi mu rafetalee ci man gannaaw ba mu ma génnee prison mbokki julli yi loolu li ñu ciy dégg mooy suñu jarbaat dañu koy massaw waaye dañu koy ndokkale yàlla ku mu bëgg dafa am ay nattu yu mu lay teg kaso da ko nattoo yonent laa wax doomu ñiy toog ay borom yi xam-xam lañu da ko nattoo doomu yonent da ko nattoo sëtu yonent yuusuf yaaqub moo ko jur yonent la yaaqub isxaaq moo ko jur yonent la isxaaq ibrahima ko jur yonent la kon jarbaat dañ naan la dañ lay ndokkale mais dañ lay massaw ah kii nag doomu sàkkal la doon sëtu alaaju Moussa maa ngi koy nettali sax benn anecdote yàgg na boobu gone la yabal xale ne dama maam Moussa na may gerte <laughs> maam Moussa xama Assane xama Mbaye Diagne mu jël benn dimi nen dama leen joxal ma ko yargas yi eh, yaayam doon suñu xarit ñun soxna Aida Seck ay nijaayam di suñuy xarit doon suñuy àndandoo ku mel ne suway liima magam bi mu bokkal bàyyi ñu koy wax nekk professeur à UGB di sama collègue ñu jàngal loolu lycée Charles de Gaulle pendant des années Masawut si kon moom dañu jaxasoo jaxasoo yu bari bari bari bari bari ñun nag sàkkal lañu dëkk sàkkal lañu am kii doomu sàkkal la man waxuma ay coloration politique ñun li ñuy wax mooy kii c'est un fils digne sàkkal kon bu yàlla dogalee doomu sàkkal yàlla teg ko nattu ba génnee ko ñun en tant doomu sàkkal dañuy ñëw massawu ko mais dañuy ñëw ndokkale ko balaa ñuy wax nag politique ñun nag en tant que imam ratib ñun askan bi lañu fi nekkal sànq laa jóge ci kër Ousmane maire muy jàngal baayam alquran di ko jàngal ay mbokkam ñun ñoo fa nekkoon man ma jàng xatmu ba maa doon def ñaan ya tonton monsieur Diop mais il peut me témoigner ma nga fa woon ak mbooloo mu bare ak tonton El Hadj Ndiaye Mbale loolu li muy wundu rek mooy ñun ak Saliou jàng Mbale professeur xam nga lan lay wund ñun balaa ngay wax dara ñun li ñu ñor mooy sàkkal li ñu ñor mooy doomu sàkkal teewul nag teewul nag li ma koy waxee toujours man ku ma miin en tant que imam man du ma imam rek man dama bokk ci réew mi dama nekk agent boo xam ni fi ma toll nii maa ngi dépendre ci ministère de l'éducation di agent de l'état xam nan la réew mi doxe parce que lu gàtt-gàtt nag man dégg naa ñetti làkk dégg naa français dama koy bind di ko wax dégg naa arab bu baax a baax dégg naa wolof kon ni réew mi di waxee ni doxe xam nañ ko bu baax a baax a baax ñun nag toujours ma wax ko ci minbar laa koy waxee toujours dama ni ñun fu réew mi ma si yëngu leer na waa sàkkal gii toog léeg-léeg sax nit ñi woo imam imam fais attention imam fais attention discours bi tey diis na ci jàkka ji bayaan bi diis na man leen man gënuma ñi nga xam ni dañoo dee ci minbar Seydina Omar fan la deewee ci minbar Seydina Ousmane dañ koo rendi Seydina Ali ci minbar la deewee ñii ñooy al xulafaawul arbaa Aboubacar rek moo dee ci kaw lalam kon ñun li ñu ñor mooy réew mi damay wax toujours nag ku fi mën a nekk jiite réew mii te yàlla na ko yàlla dimbali ba man jeunesse bi laay yërëm maanaam ñoom fu ne seet nañu fa rek koo xam ni mën na leen dimbali ñu dem ba ci yàgg rek lañ doon wut amuñu ko waaye man damay wax ne Ousmane Sonko discours yi ma dégg ci sama nopp bii mu di ko wax su ko yàlla dimbalee ba mu réaliser ko réew mi dana dox man politique ma de politique damay wax je dis ce que je pense li may xalaat moom lay xelli di ko wax te nag benn ganaar daf ma nenul xamal lan la man amul benn politicien man je suis agent de l'État RHA 1 e. man bu weer deewee damay dem toucher ji sama salaire amul benn autorité boo xam ne danaa ko woo ni ko dimbali ma ci dépense wala courant walla ndox bi ñuy jàng damaa dem jàngi am samay diplôme di liggéey yaakaaruma kenn kon man lan moo may tënk lan moo may tënk man bu may wax amul amul mani li muy wax ñun ñu di ko déglu di jëfandikoo suñuy xel bu ko yàlla dimbalee ba mu réaliser ko réew mi dana dox xam li tax ma wax loolu damay wax saalu Dieng ni ko damay wax Saliou Dieng ni ko dafa leer ñëpp système bi fi nekkoon depuis 1659 premier comptoir commercial Saliou Dieng bi may dégg c'est un historien lifin dama ni leen seen waa ji du gaaw a am jàmm de ba ma koy wax yàgg na dama ni li ñuy wax système bi mu nekk fi ñi yor réew mi yor ko boole ko ànd kook sëriñ si muy dox pendant des siècles ku ko laal balaa ngay am jàmm daa sonn balaa ngay réaliser daa sonn parce que dafa laal lu rëy moo tax ñun ñoo ngi ñaan yàlla yàlla nag moom mooy maye lii Ousmane Sonko di wax su ko yàlla dimbalee mu réaliser ko kooku moo gën ci réew mi xaw nag bu ko réaliser ndax nag gars yi sëñ bi yàgg nañ ñoo wax de ñuy ñuy taxamtiku di yaakaar fàttaliku nañu. guddi ga nga xam ni Dakar kenn nelawul yana maar yana maar fàttewuñu ko ñuy tàqamtiku jeunesse bi yépp di fanaan ci mbedd bi di tàqamtiku forage daal di kon li ñuy ñaan yal na yàlla dimbali ko ba mu réaliser salaamaaleykum wa rahmatullah di am kontaan trop nag jàkkaarloog sama mbokk yi mais balaa ma sori maa ngi nuyu képp ku xam ne kilifa nga ci dëkk bi li ko dalee imaamu dëkk bi Alaaji Ousmane Dieye magu chef de village ak magu dëkk bi ku ci mel ni tonton monsieur Diop Mële di rafetlu seen taxawaay ci sàkkal lépp lu xew dana ñëw taxaw rafetal ko ñoom nañu xam ne nekk luñ fi kenn lu dul luy defar sàkkal ñu ngi leen di remercier ci loolu suñu paree nag di nuyu sunu gan yu tedd di nga xam ne ànd nañu ak suñu rakk suñu jerbaat sunu rakk sunu jerbaat yar ba ñëw tey sàkkal si bés bu màgg bi bés bu tedd bii kon ñëpp ñu nga xam ne jóge nañu dakaar jóge si instant su parti bi ak ñi jóge Louga ñu ngi leen di nuyu nuyu gën a tedd di leen sargal di leen bismillah di si profité aussi di ziar sunu mbokk ñu nga xam ne sunu mbokk murit yi macha allah tey ils sont très bien représentés ici mooy nit ñu baax ñu am teraanga man nekk naa Daaru Musti yàlla def ma jokkoog maam nu Birahim Mbacke muy góor gu baax macha allah lépp bu ñu fa doon ñëw man la ñuy jox ma wax te noonu la amee teraanga kon moom fu ma gis mbokk mu rek macha allah damay kontaan si ñoom ay borom a teraanga lañu ay nit ñu am solidarité lañu kon ñu leen di féliciter si loolu bu baax a baax di indi nag nuyoo ñëpp nga xam ne kon ñoo nekk éli si ko nga am ne si parti bi lañ bokk nekk au niveau de la mairie di si profité ici yóbbaale aussi nuyoo Anta Mbeng nekk responsable Pastef ak à Sakal ànd ak sunu rakk Serigne Dieng nga xam ne moo yore coordination bi ñu joxante loxo macha allah di liggéey liggéey bu rafet yar ba nag dañ lay massa dañ lay encouragé macha allah taxaw taxawaay bi rafet na yàlla na continuer ba ci kanam li nga war a def rek loolu nga def ndax gor bu waree bañ rek dafay bañ te li nga def ñëpp goo defal kon siggil nga sàkkal dugal nga sàkkal ci histoire macha allah kon ñu ngi kontaan si loolu di leen sant di leen gërëm yéen ñëpp. aouzu billaahi mina sheytaani rajiim ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziar yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay waaw dañuy wax ni tey dañoo war a sant yàlla bala ñoo def dara ndax yaakaar naa ne ni bu fàttaliku le 22 mars bi ñu toogee fii. conférence de presse bi dawoon na yaram yaakaar naa ni rango yu bari tuur nañu kon tey war nañoo sant yàlla alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin ndax yàlla bu la tegee ndogal ba teggi ko da koy sant Macky Sall teguñu ndogal de góor gi yàlla moo teg ndogal jaarale ko si moom moom tuuti na ci teg ndogal nit boo nekkee ci yoonu dëkk yàlla dina la natt ba xam li ngay nekk dëgër na ci yow wala dëgëru ci boo ci dëgërul bu natt yu ñëwee rek nga daw kon kii tey mën nañ ni ndaanaan la jàmbaar la def fa jàmbaaru fàkku tëdd mu ngi nii ndax li mu def bëri na ñoo xam ne ñeme ñoo yegg foofu ba di ko def ñun tamit ku ne ci li nga mën a ñii xeex nañ ko ci réseau yi ñii naqarlu nañ ko ci conférence de presse ñii dem nañ ci mbedd yi bàyyiwuñ dara ba tey ñuy sant yàlla ñoom ñu ngi nii toog ak ñoom ñi mu fi nekkaloon ñu ngi leen sant ñoom ñëpp leen gërëm bu ñu jógee ci lool ñuy dalal suñ gan yi di ko dooree ci suñu kilifa yi Mbàkke bu ñu paree teg si kilifa yu sell yi ak alaaj ak euh, yarga si mu sell bi bu ñu paree dem ci sëriñ suñ coordinateur di nuy suñ yaay mère Anta Mbaye man nag li ma gën a ñor ci wax ji xam nga lu mu doon mooy jeunesse bi laay waxal premier pas bi ñu war a def mooy dem jëli carte yi d'abord parce que euphorie bi neex na mbooloo mi neex na gisaat suñu frère neex na loolu mais nañ dem jëli carte électeurs yi buñ ko tayel sous préfecture bi sorewul ku génn fii lën suba wala lënd incha allah nga dem jëli sa carte ñu waajal li ñuy jublu parce que dañoo am défi bu rëy bu ne suñu kanam ñoom ñu ngi naan dañuy def ay maguy dañuy joxe seen chiffre ñun dañ leen di gagné quatre-vingt pour cent mu leer nañ kon amul yox-yoxi jeunes yi def leen ko seen yëfu bopp gis nga kenn xëccalul boppam ku ci nekk da ngay xëcc ngir Sénégal un Sénégal meilleur comme niñ koy waxee message bi président Ousmane Sonko wax na ko ba tàyyi donc li les mooy coalition euh, Diomaye président bi incha allah le 24 mars ci ngoon dañuy ndogg ba pare dem jubilé ji waaw loolu nag lu wax ay waxi kese koy def dafa ànd ak jëf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 loolu dafa leer lim si tegaat mooy le vingt et unième siècle doit être africain et la le réveil réveil du phénix endormi depuis trop longtemps mooy li imaam doon wax sànq boobu ba léegi ñu ngi ñuy nelawal di nax ay nax yu neex ñuy xalangu rek di dem tey nag dafa jot dafa jot tey ñun ñu jug ñun jeunesse bi suñu combat dañuy jug dox ko wax ko bu ñu amul moyen ñu jël takk suñuy dàll. dëkk yi soriwul ñu taw dem waxtaan yi terrain yi wax ak suñu moromu jeunes yi convaincre leen ñu voté ñu gagné. suñu yaay yi gis nga bu leen kenn naxee benn benn wax ak benn kol ak wala kap ba ñu leen di jox bu leen ko nangooti gis nga ñun lii ñuy woote jëluñu xaalis di jox kenn ñu ngi nii toog parce que du jël xaalis di jox kenn mais danaan la kaa ñu ànd liggéey li ñu moom muy Sénégal te ñun fii sàkkal dañ koy gëm incha allahu rabbi dañ koy dem jëli te dañ koy gañe bu soobee yàlla jërëjëf. imaam ratib cim réew mooy ambassadeur yàlla ca mu ne. di nuyu sunu kilifa mbàkke mbàkke yi ku sant mbàkke defe naa mbooloo mu mu couleur mu rafet ak ñeneen ñi ci biir te mëneesu leen lim te buñ leen limee dañuy gën a guddee xam nañu ñëpp sopp ñëpp. nuyu ñëpp gërëm ñëpp ziar ñëpp balu ak ñëpp balu ak ñëpp alaaji Ousmane imam ratib ñu ngi lay gërëmati di la santati di la ñaanalati li yées ci àdduna mooy tumuranke kilifa foo dem mu feeñ waaye boo amee kilifa it foo dem mu feeñ damaa wax ni saal bii tey ku gis ni mu mel xam ni am na njàngat mu ko jur njàngat mi lan moo ko lan moo ko jur mooy yar ak teggin gis nga yar ba yar ga li mu am ba cinq kër ba léegi nu diju nun ñi ñëpp conférence de presse ba ba nu bàyyi politique kenn xamul kañ la nu ñëw toog pour sagal ko taxawu ko yaram moo ko may tertoom bi yaram moo ko may nit lay yaru ndaw loo mën a doon ak loo mën a jàng ak xam-xam boo mën a am ak diplôme boo mën a am te amoo yar ka yaroo ngi topp sa gannaaw bu ñëwee putt mu for ko def ci poosam te dootoo ko gis kon yar ga ñi ngi lay ñaanal yàlla fa nga jëm yàlla nga fa yegg ak jàmm te muy sa njiglaay di njiglaay sàkkal nag ndaw ñi ku leen yërëmul amoo gis-gis saaku cinquante kilo ceeb vingt et un mille cinq cent wala vingt et un benn yaa booy cent franc te jigéen daan solu ba jekk xeeñoo lu neex bokkuk legatam bu berefalee ñu may ko yaa booy tey benn yaa booy quatre cent franc man mii caisse de précaution laa nekkoon en 96 bi ñuy tëj saaku ceeb 100 kilo Pakistan wala Siam am nañu ko xamul fii ci gone yi 12 417 la 100 kilos bay jar tey 50 kilo di jar 21 000 te ceeb bi ñore fan Richard Toll guur loolu dama koy tudd pour xoymet rek yarga nag. famille yu jullit la bokk famille bu jàmbaare la bokk famille bu am ngor la bokk feeñ na ci moom bañ ko jàppee sama soxna Mati Jaañ ni ma man de yar nelaw mu biig lu ma naqari laa am ma ni ko nelawal jàmbaar lañu jàpp te ku jàpp jàmbaar tôt ou tard ko ba te jàmbaar ju ne bu xare bu xare te karnaasee bala ngaa am bànneex dangaa dugg ca biir xare ba gor ñi daanu géwél yi woy puutar ba jóg pënd fas jóg ndam doog dikk kon yarga sa bisu tey bii jomb la yaa ko liggéey nuy sant yàlla nag bu baax am na ku ko fi wax ndokkal ndokkale ak ak masawu kaso dafa nekk lu rëy ci ka ci ci wax ca jamono bu ñu ku ñu mësa tëj kaso da gàddaay boo génnee waaye du kasoog léegi bii nga xam ni ku la neex tëj ku la neex ba booba dangay ngay jëf lu ko jar ñu tëj la boo génnee gàddaay ndegam gor ga tey nag dañuy seet gor su deful dara ñu jël ko ni ko raw nëbbu ko jant bi nëbbu koy bokkam nëbbu ko soxnaam nëbbu ko ay doomam nëbbu ko ay am ji jàmmam nëbbu ko ay dëkkaaleem waaye dañu ni yéen néeg la yéen a siletment la day jiitu lu waay yéen a lu mu doon yàlla nay jàmm ci sa bopp lay réew mi amatuñ jàmm de Macky Sall ku la ne mi ngi nelaw xul dëgg gëmmentootul sax bay nelaw day xoole ba bët set nun nag loolu dañ ko ci boole di ko def ci jumbo ji waaye nun politique a tunu ku jëndoon carte MJPS ba fii nu toll dëkk bi nga taxaw nga am fi euh, juróomi mandat conseiller ñaari mandat vice président commune rural ba commune di ñëw nga randutu mag ña dem ah, loo xamul ci politique bareetul ku nu nax xam nan ko ku nu naxul xam nan ko gone yii sax ku leen mën a nax nekkatu fi mais dana am lu ma leen yëgal dafa am genn gaynde gu ma a nekk ci benn dëkk jànq bu mat rek nag la bëgg du fàdd lu janq bu mat sëkk te rafet ñu jógal gaynde ga campagne benn waay bu mel ne Alaañ Njaay daal di ngemb jël fetale ni da koy fetali te kat ndeke fetal ga amul sox waaxu ba ñu ni gaynde ba ñu ni ko gaynde gaa ngi fii ci biir gaw gi gaynde gi ñoxeet ŋar xool ko ŋaaŋ alaa njaay sukk aji fetal gi bal nekku ca xam nga lu mu dóore bala gémmiñam tëy gaynde gi yanu ko xam nga loolu lu tax ma wax leen ko mooy loo xare-xare lu mbooloo mi bari bari lu tàccu neex-neex lu animation neex-neex boo yorul sa carte denc ko fu beggandi ba bu bés baa nga xëy wate yoroo dara defoo dara xam nga Sonko li lu ko may fit ak jom ak ngor laloon ak lislaam parce que boo laleewul boo lislaam lu ñëw yëngal la kon yéen góorgóorlu leen yéen a ci des ñun li ñu dese tuut la waaye yéen li leen dese bari na te réew mi xajam na metti na yoon wi ñagas na ndax am réew bu fekkee ne ay at ku ñu fal nga wut saako si saal sol ko xaalis ba mu fees nga dëngulu bu ñu la wàccee mu am yi fan nga nga def meeting ni mer naa wala bàyyi naa maa ngi dem beneen parti ñu yoddiwaat joxaat beneen poste ñu bëgge noo bëgg dëkke noonu nag bakkan xam nga sax ñun chance bi nu am mooy amuñu cardiaque ndekon ñun ñëpp faatu nañu bu yàgg bi ci des mooy benn jigéen dematul marché de sa weccit ndax marché neex na nga wax ko jigéen mu yor weccit wi xool la nga xool ko yow bu jëkkër ji mun na weccit waa ngi nii amatul du dese dara lu jar jumbo am réew na neexaayam fi muy dooree fan la mooy dund bu yomb am réew neexaayam fan la mooy kenn ku nekk booy liggéey mën a yóbbaale fukki nit même bu ñu liggéeyul añ ak reer ak ndékki tey loolu kenn mënu ko bu ñu mosee tuuti ci ceeb bi fecc li ko as ndox bu ngoonee bu dee as dëxin wala ñu transant ci ñebbe ku ne mos ci tey mbalas ko boo amee ataaya naan ko boo ko amul tëri di fanaanoob xiif te kat nelaw moom mënta neex surtout ci borom kër buy nelaw te yorul dépense suba du nelaw wala moor surtout ndekki surtout ndekki boo ko fanaanoowul bu la ndaw si tege loxo nga ni ko merci fàlle rek nga koy waaye dootoo ko woon kanam kon damay tëj xam naa lépp ñi ngi sant yàlla bu baax di sant la yàlla yarga si dañ lay sant la yàlla am na nañu lool mbégte Serigne Dieng ñi ngi lay encouragé góorgóorlu leen nit day am ngor am jom am pas-pas bañ na ko ba nag li ngeen tudd est-ce xam ngeen ko Pastef ku amul Pastef ku yóbbu bala doo dara ñu ngi balu àq ñëpp di bala àq ñëpp wasalaam